te ñu bari dañoo yaakaar ne takk fer lool mooy joŋe. Mhm. ñu bëri dañoo yaakaar ne jël cuuraay xëpp ci néeg bi ba mu bari saxaar loolooy joŋe. Mhm. diit loolu yëpp ci set la. ci set la. jigéen war ngaa defar sa lal ba mu. boo yee sa jëkkër yow waroo ko dóor. waroo koo dóor pap pap déedéet. noo ko yeewee mama. fóon ko fii. Mhm. wala nga def ko nii ndànk. nga raay ko ndànk. ndànk ci tànk yi wala ci mbagg yi. wala ci fan ndànk ndànk tànk mun nga laal tànk yi ndànk. Mhm. wala nga ñiiramtal tànk yi ndànk. dina yeew dina bërit sa jëkkër benn respecté ko. Mhm. la mu war di sol. Mhm. yow yaa ko war a génne yow. war ngaa xool sa jëkkër dàllam d'abord. war ngaa xool yéreem. war ngaa xool sous ba muy jiital. waroo bàyyi sa jëkkër jël kalisongam di ko fóot di ko fóotal boppam du yoon du xëyee boo xamee ne biddanti na raay ko ndànk walla nga ñëw fóon ko ndànk dina jóg dina xoole xippi ndànk nga ne ko naaj na ndànk dina jóg ndànk nga préparé ndikkeem yépp tegal ko ci taabal bi jël say torchon teg bàjji ko mu dugg ci toilette bi sangu ba set génn nga ne ko kaay ndekki baa ngi nii fekk nag nga génneel ko ne ko tey lii ngay sol mu sol dàll yi génneel ko dàllam yëpp préparé fomp ko ba mu set génne parfum yow sa bopp mhm. yaa war a puufal sa jëkkër parfum parfum maanaam bi mu war a xeeñ ci journée bi su ñëwee toog nga tegal ko ndékkeem toog ci wetam ba sa jëkkër ndékki ba pare nga jox ko ndox la bëgg yépp nga defal ko ko tàggatoog moom mu dem taal otoom dem liggéey yoo nga des ci kër gi bu nekkee danga war a dem marché nga dem marché ndugg def fulla ak fayda ndugg la nga war a ndugg ñëw waaw ceebu jën am na jigéen ñoo xam ne nañ koy toggee du noona ceeb daa war a baar hmm, baar menn mi baar hmm. denaan ceebu ndar waaye mën naa togg ceebu benn baraag gii ma dëkk. Mhm. ceeb bu neex dëkkul ndar rek dafa am ceebu yéene. ceebu yéene te sa jëkkër sa jëkkër boo koy toggal war nga kaa mën a yéene. Mhm. bëgg d'abord bëgg sa jëkkër d'abord bëgg dafa am bëggantu dafa am. Mhm. yow boo bëggee xam ne sa jë sa jëkkër day wàcc añ si ci kattanu yàlla. yow war ngaa mën a teel a jóg defal ko loolu ba pare ñëw togg sa ceebu jën baaral ko ba diw ga nekk ci kaw nga wàññi sa gaas ndànk bu dee këriñ la nga wàññi këriñ ba desee tuuti. waaw. daal yàq teg sa torchon teg sa raxasu bu nekkee sa jëkkër day guddee wàcc du fa añ si nareet ba teel pare. nareet ba teel a pare. sa jëkkër bu wàccee nga tàngal ndox dugal ci ay tànkam raxas ko ba mu set. Hmm. yow nga toog ci suuf sa jëkkër toog ci kaw nga jël ay tànkam teg ko ci sa ci sa tànk di ko fomp wàññiwu la dara. déedéet yaa signé bëgg sëy moom. Hmm. mais yem ci fer dong. Hmm. fer fer mooy la kasan kasan loolu ak cuuraay. cuuraay war nga koo taal ut leen seen papier aluminium. mi. papier aluminium bii ñuy ñuy ñuy. ñuy lekk yi lakke ginaar wala ginaar sax papier aluminium da koy lakk ndànk muy ñoon ndànk te du xëm jël cuuraay lëmas ci papier aluminium bi teg ko ca keeb ca pegg bu ànd ba rekk saxaar du saxaar dina xeeñ ndànk néeg bi neex te saxaar si du la rey ndax eh, mën naa indi cancer wala ma indi ab sëqët. wala asthmatique yi sax. wala asthmatique yi.